dalen ak jamm mbokku internet yi seen football TV nuyu naa leen bu baax yàq leen di am mbégte saa ne defal leen vidéo mbokk internet di wax leen euh, merci merci franchement si commande yi ballon yi euh, blouson yi maillot yi xam donc maillot yu bees lépp c'est disponible xam donc euh, au 77 352 31 01 ma leen remercier bu baax mu naax yéen a ngi jàppale seen football TV yéen a ngi ñuy dooleel donc ballon yi c'est c'est disponible prix très abordable contacter leen suñu numéro WhatsApp incha allah di ngeen ñu jot. mbokk internet dañuy ñëw wax si Naby Djelit ak Rémy Ngono mu nekk ñaari chroniqueur football kenn ki di nekk euh, voilà RFI keneen ki nekk euh, l'équipe parfois ngeen gis que canal di Naby Djelit nekk euh, franco-algérien keneen ki gis ngeen ne Cameroun la mu nekk ñaari nit ñu xamante ne voilà daanaka chaque semaine da ngeen leen dégg si actualité dem nag actualité bi ñëpp xamante ne xam nañ ne final la woon si diggante Sénégal ak Maroc U17 final bu xamante ne ñu ngi ko joué stade. Mandela moy stade boobu xamantene euh, fa lañu jëlee CHAN bi euh suñu borom nak suturaal ñu na match bi ni mu démé won metti na doyna war euh duggal ñu bi bu xamantene erreur gardien bi la mënoon mal occasion bi la am ñu dóor ñu 1-0. Euh, deuxième mi-temps boy yi xam donc yëngal gësam am penalty dugal am corner dugal am mentalité pour mën a jël ndam ni andil ko fii ci réew mi euh, fii ci réew mi ñëpp kontaan gis ngeen ay réaction yu bëri je que gis ngeen réaction bu Kalidou Koulibaly gis ngeen réaction bu Abdou Diallo xam naa dinaa si ñëw ci xamante ne boobu ñoo koy am ci monde du football canal saan naa émission ñëpp xam nañ ne football bi ñu mu ngi si école football yi tout d'abord école football dem nañ ba association bu mag a mag a mag Euh, association association boobu permettre na sax léegi yenn jeunes boo ko bëggee fa ngay dem nga leen jël ñoom maanaam ñoom jàmbaar ñoom Oslo ñoom Daaru Salaam au lieu ñu ñëw certes dinañ def ay test pour nga dugg fa mais loolu permettre nañ leen booy balaa dara di xaw yenn base football contrôle passe yenn sax nañ ko am donc surtout tout un travail du ko fédération bi kese du sax centre yi kese donc ñëpp la ñëpp paas yi bay bay bay seen wax ba si man parents yi sax pour man bay nañ seen mën a nangul seen doom ñu dem di

dangay euh, Twitter moom yëpp day day commenter nee na félicitation Sénégal euh, seen formation moom moo tax ñu am ndam ni ñu mel xam nga du lu ñu sàccee du lu ñu du lu xam dañ ko tànn wala yu demee noonu du hasard daal liggéey bu bu war la parce que même Fouseynou euh, Diawara bi nekk fële Fouseynou Diawara bi nekk Kana sax même chose la wax. dana lii formation lii c'est un travail du hasard mënu ku ñi si kaw ba si suuf c'est un travail bu xamante Sénégal da ko def nangoo muñ nangoo xaar ba fruits yi léegi moos loolu dafa ñëw léegi remi Ngono la même chose la wax Sénégal c'est instant yi am Sénégal euh, gars yi ne le foot jour à onze le Sénégal mooy gagné à la fin <laughs> maa ngi dégg commentaire boobu ba léegi mais euh, mu nekk ay boo xoolee chroniqueur yi de manière générale fii en Afrique xam nga ñëpp ñu wax si wàllu football même kàddu gi lañu wax même kàddu gi mooy que Sénégal ñoom moom Afrique ñoo fi teg seen tànk pour man liggéey fii la gën a méttee maanaam noo fiy def noo fi def def noo nooy fexe ba ba nga des fi ba nga def fi xam nga ne ko au sommet neex na trop mais des au sommet moo moo mooy mooy beneen liggéey bu xamante ne kay amal xam nga mu mel ngay jàng jàng am sa bëf yaakaar na affaire flemme wala nga am bëg yaakaar na flemme alors que après bëg am na un autre lu leneen lu war a ñëw donc liggéey du ma sa du du du ma sa jeex ñi doon gagné ay ay ay làcc waa Brésil làcc yeneen dëkk yi il faut toujours travailler il faut toujours maintenant nag la fekk nga gagné ay trophées da ngay am benn respect benn respect respect Euh, gis nga nationalité brésilien ñoom seen i maam ñoom Pelé ñoo liggéey loolu ñoom Zico ak ñeneen ak ñeneen ñoo liggéey loolu ba tey jii nii boo boo gisee brésilien rek naa mën a fool seen i maam ñoo liggéey loolu noonu instant ñun instant dañu am carte d'identité suñu carte d'identité dafa diis dèjà que diisoon na parce que ay bokkaande def nañ si franchement a seen li li ñu mën xam ba fi yem ñoom El Hadji ñoom Henri Camara def nañ si Sadio Mané moo nekk di def lii nii day tax dañuy am benn euh, ñëpp a fi ñëw di xool ay jours et loolu ñun ñoo si gagné équipe nationale moo si gagné loolu moo tax lu la gagné bi bu kenn xeeb xëy na fii Afrique gagné nañ kontaan nañu gis gis ngeen jour suñu axe bi nekk U20 euh, waa Baraga yeneen yi gis Amara Diouf yeneen gis ñu ne poto nga laaj booy fàllu boobu toog leen fii ak semaine li ngeen dégg benn club donc muy Rémy Ngono si li ñu leen man a wax si gàttal di Rémy Ngono du Nabil Djellit ñoom ñëpp ñoo wax ne Sénégal moom formation moo tax ñu am ndam bile ma ne ko bi